dal a ak jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne nag moom la xëyandoo yéene bi di xamal ne demal fi nga xam ne nag moo di foofee kay ndox maa ngi fay koy tëmb ay jafe-jafe yu metti la ñuy ca jamono jojee nga xam ne daal taw yi daal mi ngi sonal ñi nga xam ne nag ñoo di askanu Sénégal njiitu réew mi Macky nekk ci réewum France yéen kaay bi du ñu xamal ne askanu Sénégal Sénégal ñoom daal jamono ji ña nga xam ne daal seen ca Kaolack la ñu lenn loo xam ne daal def na ko jamono ji nag la ñuy moo di moom Mariama Sarr mu daal di dem ca jamono joojee yéenekaay bi di ñu xamal ne Pape Diop bokk gis-gis di ñu xamal ne jamono ji daal réewum Sénégal maanaam daal njiitu réew mi Macky Sall dafa tegul ñi nga xam ne daal ñooy réewum Sénégal di nga xam ne nag moo di fenn ndax askan woo xam ne daal jamono ji ay jafe-jafe yu metti la ñuy jànkonte njiitu réew mi nekk ci biti réew di gundaan daal di noos bàyyi askanu Sénégal ñuy jànkonte ay jafe-jafe leneen loo xam ne nag jamono ji jaaxal na ñi nga xam ne nag ñoo nekkee ci Sénégal yéenekaay bi di critique di ñu xamal ne mooy parti bi nga xam ne nag moo di PDS jamono ji ay jafe-jafe yu metti la ñuy jànkonteel yéenekaay bi di ñu xamal ndax parti boobee du tas laa la wax ndax gannaaw daal ñi nga xam ne nag ñoo di frondoo di toll nii kay daa mel ne ab guerre moo am ci ñi nga xam ne nag moo di génération di

ñu xamal ne ay jafe-jafe kay moo amoon ci diggante ñi nga xam ne kay ñoo di Serigne Saliou Thioune ak ki nga xam ne nag moo di Soxna ay kàddu yoo bi dañu ñu xamal ne ca noone ca kay teg nañ leen loxo ba procureur bu Thiès daal digle ñu daal di ubbi jëmale ci mbir mi nga xam ne ne moo xam foofee ca Mboro. Elhadji Ousseynou Ndiaye